tey ñu resee ci li nga xamante moom moo nekk samedi 13 janvier 2018 ma leen di fàttali rek ni stade Alassane Djigo moom la ñu toll tey jii nag euh, ñu nekk ak euh, ndaanaan boo xamante ne ni dootuñu ko présenté kenn ci milieu sport mu nekk euh, ndaanaan boo xamante ne dafa ŋàkk li nga xamante ne moom moo nekk sport bi def ko li nga pour moom def ko aaram mu nekk un très grand connaisseur boo xamante ne il est très respecté mbokk yi comme ni ma ko defee woon tout à l'heure ak monsieur Camara noonu laa koy defee waat ak li nga xamante ne moom mooy seen i plateau aussi tamit noonu ngeen ko nar a euh, demandé waat euh, sëñ bi na nga def. sant yàlla baax Germaine. est-ce que mën nga ñoo baal nga fàttali ñu tur bi ak euh, tuuti de manière ramassée yow yaay kan ndax nit ñi gën a mën a fàttalikuwaat. waaw ah, je me nomme coach Samassa. dëkk Pikine. je suis joueur ci championnat amateur nawetaan. juddu ci juddu ci football. waaw ah, parce que son papa il fut euh, ancien international jël les Jeux de la l'amitié de 1963 kon donc ñun football daal ci la ñu ci ci lañ ci la ñu war di yëngu daal waaw lu acc lu ñu mën a yëngu daal foog ñu yëngu ci bu baax a baax yàlla def nag euh, ba ñu ba liggéey bi tënkee ba ñu kone sunu football ñu dem euh, vraiment dem dem jàng ji yàlla def nag ñu commencé ci am ay diplôme macha allah dem tamit tukki sàkku ji xam-xam fu mel nii euh, Paris FC de passage ma leen di ma leen di sant di leen gërëm parce que vraiment ils m'ont accueilli à bras ouverts jàngal ma xamal ma lu bëri bëri ci football. Euh, bu mujj tamit laa dem Nîmes même chose olympique de Nîmes ñoom tamit ma leen di jaajëfal dem def euh, stage waxtaan nag ñoom pour d'autres éventualités ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay projet la man nekk ci di tàllal loxo nag waa Sénégal yëpp. plus particulièrement waa Pikine ñu defal ñu ñaan seen doom pour que li nga xam moom la bëgg ci football bi yàlla defal ñu ci sutura te ñu apporter ci suñu partition ah Germaine loolu la en grosso ayca amis téléspectateurs wu Laye TV alors damay wax nag ni euh, comprendre ngeen lan moo taxoon ma ne leen euh, euh, nit ku ku ku fort nit koo xamante ni dafa ŋàkk sport moom la ñuy andiwaat comme consultant tey jii nii ginnaaw ba ñu jàllee ci monsieur Camara monsieur Gassama Samassa monsieur Samassa excusez-moi tey mu nekk un grand jour ah ñu gis ni daf ñuy jël journée bi yëpp naam waaye aussi tamit dañ cee ñëw ak suñu disponibilité bi yëpp ah tey mu nekk bésu final yi zone 2 ah ma bëggoon de manière ramassée nga waxal ma tuuti si zone 2 zone la boo xamante ne war nga cee xam lu bari. waaw dinaa dinaa ci xam lu bari euh, juste que am na changement ci diggante bi parce que zone de dafa composé woon ay équipes yoo xamante ne tey ñu ngi côté bee ci zone zone une te zone une maanaam Pikine Ouest lañ ko def parce que dañ ko communaliser et avec la communalisation. dañoo jël euh, Pikine Ouest dafa ëppale équipe. moo tax moom mën na def ci zone am zone une mën na fa def moom kase ak nawetaanam am kubam maire am ñoo présider ko tout ça mën na ko def au niveau de la commune de Pikine Nord am nañ ay équipe mais matuñu lu mën a def championnat nawetaan moo tax ñu boole ko moom ak Pikine Est tey ñu nekk même ñu joué seen même coupe seen même championnat kon donc zone de neexoon na amoon na ay derby yu am yoo xamante ne ñun. ay supporters lañu di ko seetaan nekk ay xale màgg ci benn derby cosaan gune zeng rek loolu boo ko daan seetaan rek lu nekk ngay wax benn gune zeng gazel loolu loolu dafa neexoon. et pourtant léegi nag loolu derby boo mënoo ko am tant que peut ñu demuñu départemental ñu daje wala ñu dem régional ñu daje te lañ ko mën a am mais zone yu yàgg la.

teel ay si cosaan ñëw seetaan si ñëw supporter si ñu gis si mas passé fii aussi tamit ni euh, waa ginnaaw ñëw seetaan si euh, mu mel ni nit ñi dañoo comprendre que ni euh, stade maintenant village la boo xamante ni ñëpp a ci bokk dëkk ku ci aye rek da nga aye pour sa morom ustam ñi ñi ñëwalante bu baax baax mu nekk loo xamante ne dama lay remercier bu baax baax par rapport appréciation boobu noonu tey nag ñu am trois matchs yoo xamante ni moom la ñuy jouer tey benn bi commencé ba pare mu nekk vétéran yi ñu am ci ay ASC Sirat ak Gunay Zing nekk aussi tamit derby boo xamante ne derby bu mag a mag la que ñu ngi ñuy xamal quand même ni euh, Gunay Zing ci biir Sirat am la loolu lu la Sirat moo jiitu moo jiitu Gunay Zing euh, bu ñuy fàttaliku bu ñuy fàttaliku bu baax loolu derby bu mag la mosoon ne parce que d'habitude équipe yi nga xam ne dañuy juddoo ci biir équipe bu mag maanaam day nekk derby moo ñi nga xamante ne d'habitude dañuy am leen di métti ci équipe bi dañuy euh, dañuy sentir seen bopp ils sont isolés wala boolewuñ leen ci maanaam vraiment gestion participative bi boolewuñ leen ci te loolu bu amee d'habitude gars yi dañuy ñëw rocceeku ne nañu jéem a créer suñu yëfu bopp mais créer ko tamit dafa doon yoon parce que boo xoolee Gune Zeng ni mu toll rek nga xam ne kon donc Gune Zeng bu bokkoon ci biir Siraat maanaam dafay yaatu loolu daanaka équipe championnat lay nekk kon donc comme que championnat nawetaan lañ nekk aussi nañuy dajale quelques quartiers rek ñuy constituer une nawetaan da ci am solo ci am solo compétitivité bi am te compétitivité à chaque fois bu amee rek excellence day ñëw parce que ku ci nekk da ngay jéem sur le domaine administratif ñi wane ne ñun ñoo gën a taxaw administrativement au domaine sportif ñi wane tamit ñun ñoo dàq football ñii kon donc daf lay jaral nekk kon donc économiquement da am solo parce que boo demee recruter un joueur boo xamante parce que nawetaan dafa dépassé léegi sama koñ laa nekk damaa Gune Seng soxla ko dafay débloquer ay moyens pour maanaam jugale ko foofu indi ko parce que xale boobu tamit football la def comme euh, comme euh, comme comme ambition football la def comme métier kon donc daf ciy bëgg gagné bu da koy bëgg a def gagne-pain te comme que da ko bëgg a def gagne-pain am kon donc da ciy soxla ñu am luñ ko jox astu su tuut bu dee équipement bu mu mën a sol bu dee xaalis boo xamante ni dina ko mën a tecc ay loxo waay juram ñu ñaanal ko pour que ci li mu nekk mu gën ci am fu la xam ne kat li mu am ni war na mën a am lu ko lu ko raw suba kon donc da ciy am solo ay gune zingi siraat tey di def final euh, vétéran daf ñuy fàtte lu bëri te logique voudrait que mu nekk vétéran c'est logique mu nekk vétéran vétéran mooy kon ñi ko doon football démb tey boo xefee tuut dina am ñaar wala ñett ñu ñu ko football parce que sori na sunu papa ñoom papa lay ni lay ni te suma ma jum am na benn euh, kii boo xam ne yéen a liggéey ak moom muy Alioune Diop doomam la moom tamit ñu bokk ànd di football ñoo football doo gone cinq cadet tout ça moom dafa bokkoon ci joueurs yi am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni mën nañ leen citer ñu dëkkoon Siraat tey ñuy dëkk gune zeng ba ñu éclaté la ñi nekk zeng ñi nekk euh, kii kon donc euh, c'est une famille comme li nga wax léegi village la boo xamante ni waaw jàmm rek moo ci xaj jàmm rek moo ci xaj mais nag dans la compétitivité dans en fait le fair play waaw ñu ñëpp ñu ànd daal ñu def ñu ñu liggéey ci sport bi daal